mbokku Touba mbokku Bawol tey jii dañuy ubbi suñu campagne ma ñëw ziare si xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké mu booleñ ma ak sëriñ Touba kon nag jërëjëfe sëriñ Touba te yaakaar naa ne ku gis tey Mbàkke dana xam ne mbir mi sotti na te tàmbalee ko ñu jërëjëf Mbàkke jërëjëf Touba ba ma fa jaar naa seeti waa Mbàkke xewal ziyaare waa kër Maam Moor Jaara Mbàkke jóge fa dem Daaru ziyaare njabootu maam Cheikh Anta borom Gaawaan ba ma fa jóge dem ziyaare ji Sëriñ Cheikh Jëmb Fall Khalifa Cheikh Ibra Fall jërëjëf mbokku Mbakke mbokku Touba mbokku Bawol ak mbokku Sénégal ubbi nañu tey suñu kampañ senegal war na tànn njiitu réew njiitu réew nag buñ wax war nañu jiital ñaar benn mooy gis-gis bi ñu tuddee ko vision ñaar mooy xol bi ak yéene bi nga xam ni faaw njiit amal ko réewam ak amal ko waa réewam fii ci Touba ak Mbacké am nañu mbégte taxaw fi tey jaar ci Ila Touba am naa mbégte xamal leen bu ñu yàlla jàppale après le 24 février daañu gën a la cité sainte de Touba et Mbacké fas yéene naa ci liggéeyu ndaw ñi parce que mooy li gën a am solo ñu taxawal benn parc industriel ci Touba ak Mbacké ngir usines yi mën a ñëw waxtaan nañu si ak homme d'affaires yi ak femme d'affaires yu Touba waa Raziat ma leen di sant di leen gërëm wone nañu bu jàppale amee naka la mën a andee ay usine jox ndaw ñi liggéey loolu signé nañ ko ba pare ak waa Sonacos signé ko ak bopp usine buy liggéey dawlin ci Sénégal liggéey boobu nag danaa ko yaatal Touba ak Mbacké tàmbali nañu def plus de cent bus ci Touba tali yii ma fii def te fas ko yéene yokk dana tax ngeen am ay bis urbain maanaam dem bi ak dikk bi gën a yomb waaye fas yéene naa ci njàngum gone yi utal leen eno suñu liggéey nag nee leen fan yi di ñëw danaa si jaar ku ñëw Touba da sant les opérateurs économiques ndax tey bu ñuy wax mbéyum gerte ginnaaw producteurs yi muy béykat yi wax dëgg yàlla commerçant yi la ak OPS yi te Touba bokk na ci centre bi gën a am solo tey ci Sénégal ci wàllu gerte gerte nag buñ koy wax ñu ngi jógee ci six cent mille tonnes ñëw tey ci mille tonnes. loolu wane na yokkute bu mag ci wàllu gerte te ku ne xam na ne njëg li téye nañ ko bu baax a baax jëlee ko ci cent cinquante francs yóbbu ko ci deux cent dix francs bi ñu fi nekkee ba tey kon ñun bu ñu ne daañu jàppale mbay mi daañu jàppale càmm gi daañu jàppale napp gi wone nañ ko déjà waaye li ci kanam moo dàqati li ñuy dund tey

combat mënul fi am kontaan naa ci yéen sans exception Moustapha monsieur le maire Moustapha ak tous les responsables monsieur de Touba yéen ak responsable Mbacké yi soxna dama ne gàcce ngalaama kontaan naa te nii nag lañ koy fas yéene téye jusqu'à la au soir du 24 amuñu programme bu ñuy lambatu ñun suñu programme dañ ko tënk lu leer la lu ñëpp d'accord la lu am financement la kon loolu duñ ko méngale ak ay tâtonnage wala di jéem a lambatu kon nag ca kaw ca kanam jërë ngeen jëf kontaan naa ci